waaw fin d'année bi nag euh, ni ñu ko dundee. Mhm. mooy euh, dañ ko fête avec la famille. Mhm. donc euh, vraiment di souhaiter mes meilleurs vœux. Mhm. le monde entier di ñaan yàlla def jàmm Sénégal. def mboolem réew jullit. ku xam ne ne pandémie Covid 19 bi. ah dafa wàcc bi nag. dëgg yàlla bett ñëpp. kon ñëpp. maa ngi ñaan ñu ci ñàkk seen bakkan yàlla yërëm leen xare leen aljana firdaws ñi ci tëdd lali hôpital jógaguñu mhm. yàlla fëgg seen bopp ñu jóg mhm. te mu nekk loo xamante ne nag day day yem ci 2020 bi 2021 mhm. nag nekk atum xéewal atum naataange lépp lu ñu ñàkkoon rek ci 2020 bi yàlla nañu ko yàlla defal ay xéewal yu bare bare bare bare ñu bokk ko ci àdduna bi ci 2021 mais waxuma la mooy projet yi 2021 bi waaw bari na parce que li nga xamante ne jotoon nañ ko liggéey ci deux mille bi. Mhm. mën naa ne incha allah bu soobee yàlla ñi nga xamante ne dara teewu ko. Mhm. dinañ ko dinañ ko mottali dinañ ko génne bu soobee yàlla jox ko fan si ndax ñun amuñu lu dul fan si donc maa ngi profité ci occasion bi jéem see mu meer ko sama mhm. fan si. sama fan si. naa leen topp naa leen aw ma seen fay. aw ma seen fay lu ma mën a am yéen a ma ko gën a fay. ndox man yéen laa am. donc maa ngi leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fi yéen ñëpp kenn bañ a mën képp ku sopp moom la yàlla na la ci yàlla bàyyi nga yàgg ci lool lool lool lool lool ma àndandoo fi yéen ba ñu cee